waaw asalaamaaleykum équipe municipale de Ross Béthio jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla def na ñetti fan yëpp maa ngi doon def ay test yàlla def ñu gis ci man coronavirus maanaam dama am coronavirus su ñu nii ñu ma indi fii dalal jàmm ñu may traité nag ñu may traité li ma soxla ci yéen mooy d'abord seen ñaan ñaanal ma mu génn ci ak jàmm ba pare nag ngeen takk rek fexe bu benn dossier bañ a traîner foofu loolu aussi sàcc naa ko ci yéen di dalal seen xel nag dañ may tere wax ji moo tax ma def nii rek benn yoon parce que dama nekk sous assistance respiratoire damay manqué oxygène ñu may def dugaleel oxygène moo tax waruma wax lu bari moo tax ma yónnee leen vocal bi rek pour éviter ku nekk di ma woo ci suuf di jéem a laajte parce que du a jël benn affaire maa ngi leen di gërëm di leen sant.